jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy do rek agression bi nga xamante ne rek moo amoon foofu ca diwaan bu HLM nag gang yi nga xamante ne rek ñoom ñoo ko defoon daal nañ leen teg loxo seen lim toll ci juróomi doomu aadama nag ñoom ñooñu nag ñoo doon def braquage nag ci bëccëgu ndara kàmm foofu ca diwaan bu HLM nekki si septembre bee ñu génn nag ñoom ñooñu nag jamono ji daal nañ leen teg loxo bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne daal dinañu koy jot nag nag defeere nañ leen ci parquet lañ leen di toppee rek mooy sàcc ba noppi nag daal di jëfandikoo nag ay xarala yu yees ak ay arme blanche ak li nga xamante ne rek moom mooy ay euh, moyens yoo xamante ne dina leen permettre ñu mun a daw ni ki aljuma nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xamante ne daal dinañu koy jot ginnaaw bu ñu tegee loxo rek ñaari doomu aadama yi nga xamante ne rek njort nañu dañoo laale nag ci boobule mbir ci la boobule gang daal di tas nag ñoom ñaari membre gang yooyu waaye nag li ñeer seen identification ginnaaw bu ñu leen ràññalee ba noppi rek nag ñu leen fekk ci ab boîte de nuit boo xamante ne rek ci almadi la nekk ginnaaw bi 5 heures du matin jotee ñoom complice yooyu nag ci seen jëmmi bopp rek dañoo daal di daanu rek ci retour ab dañoo daal di daanu rek ci ab retour euh, parquet bu ndakaaru bu fekkee ne rek ñoom ñooñu nag am na ci koo xamante ne rek dafa demoon ca diwaan bu Sédhiou daal di fay daw làqatu fa nag ginnaaw nag comme ni ko libération xamle ci investigation yi nga xamante ne rek élément yu sûreté urbaine doon nañ ko amal nag daal nañuy def ab descente ci ab appartement boo xamante ne rek ba ñu ko localiser ci cité Mixa la nekk nag nekk fi nga xamante ne rek moom mooy ca diwaan bu Ndakaaru kii di M Diop ñu gën koo xam ci turu alias Papa bu Ndaw ak SM Guèye ñu gën koo xam ci turu. Petit Moura ñoom ñoo ñëpp nag ci lañ leen tegee loxo mu nekk nag ñaari nit yoo xamante ne rek jamono ji dal nañ leen di jébbal nag enquêteurs yi ñu dal di wax rek ci anam bi nga xamante ne rek moom la ñu wéyalee nag seen boobule ñaawteef ñoom ñooñ ci seen jëmmi bopp rek nee nañ daal ñeenti moto rekk la ñu yore woon ak ay scooter ci côté fi nga xamante ne rek moom mooy ci BICIS ak rond point EMG bi nga xamante ne rek dañoo séddoo ñoomu neen def ñeent def ñaari group maanaam daal dañoo xaajaloo rek def ñaari groupe groupe bu njëkk bi nag ñoom ñooñu ci seen jëmmi bopp rek kii di M moom nag moom moo positionné woon nag ci biir banque bi ngir xool rek ki nga xamante ne rek moom mooy dugg ak mooy génne yeneen gang yi nag am na ci benn gang boo xamante ne rek ñoom seen mission moo di tasaaroo nag ba noppi waaye am na ci koo xamante ne rek moom moom mooy wax baax bu fekkee ni rek am na nit bu dugg ci biir banque ngir retrait nag euh, loolu di ay euh, koppar ci mbir mu nu mel nag kii di euh, jaaykat bi di woo ci turu oo jaw lañu lañ ca daal di ciblé beneen juróomeeli nit bi nga xamante ne rek bokk na nak ci ñi nga xamante ne daal ñoom lañ njort na rek ñoom ñoo laale ci boobule mbir mu ngay woo ci turu PG Faye moom ci jëmmi boppam rek fa ñu ko jàppe mooy ci ab atelier mécanicien ca diwaan bu Grand Yoff bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xamante ne am nañ ko xamante ne rek fa la xaritam boobu nekk ñu fàttali leen rek yëf yi mi ngi xewoon ca diwaan bu HLM ginnaaw nag ba sëfaru taxi bi nga xamante ne rek jotoon nañ ko cee jàpp moom nag moo feeñal rek lu toll ci neuf cent quatre-vingt-dix mille million yi nga xamante ne rek nekkoon na ci maalu arrière otom bile du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaayu xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am xibaar